alhamdulilah alhamdulilah tax maa ngi lancé appel ko ci taalibe yi ak ci soppe yi ne leen nañu favorisé groupe de presse yi nga xam ne ñoo nekk ci biir xadra di ay ndaw yu volonte jël seen propre moyen loo xam ne xaj na ci seen njaboot xaj na ci leneen xaj na ci tabaxi kër mais guddi ak bëccëg da ngeen di gis ñuy daw ci naaj bi te média jarut desal gannaaw ndax àddina bi fi mu ne nii loo mënti am boolewoo ci média amul solo du jëm fen bu njëkk balaa nga wër àddina bi loolu ñaata at la lay coûter mais tey ci benn déclaration ci Saloum TV wala ci Barham dégg nga universel international Alfayda ak yeneen média yi àddina bi ñëpp mën nañ laa seetaan da ngay gis ku nekk Europe wala ku nekk Amérique man léegi-léegi ci tukki laa dëkk mais xew-xew yi pays bi yëpp ci yéen laa koy seetaanee dangay toog rek Facebook ñu yónnee la signal nga ubbi dundu xadra bi dund Baye Niass loolu dafa am dafa am njëg dafa am prix moo tax euh, même couverture yi balaa ñuy dem di jox yeneen presse nañ leen favoriser dimbale leen man loolu sama xalaat la te maa ngi ñaan yàlla yàlla na ngeen toog ba gën a réaliser lu gën a yaatu li am solo rek mooy volonté bi am na fit bi am na te joxe ngeen seen bopp yal na leen Cheikh Ibrahima Niass Faye gërëm naa ñëpp maa ngi jagleel ngërmande euh, Baram Seck moom mi nga xam ne moom mooy président bi ak mboolem équipe bi nga xam ne ñu ngi ànd liggéey ak moom di leen wax ne man kenn laa ci yéen ci seen biir salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu